ndax jep jëf juñu ñu ca señ bi tax ka ko jëf jëf-jëf ja señ bi ko raw gon ko rafet la mu jëf waral cheikh amar jëf-jëf ju rëy fa barab bu mag ba nekk fa wa jeri jef bu ngeen xolé fi ñu tok xamni fi moy mooy euh, boucherie bi ñi ñoy yor walu gatti ñu tok ak jëwriñ bi nga xamni mom mo yor walu nag yek walu fessek yoy muy serigne Saliou Tall serigne Saliou ñu ngi lay bu baax Serigne Saliou euh, euh, comme ni ñu koy defee at mu jot rek yow yaakaar nañ ni lépp loo xam ne xew na ci kër Cheikh Amar wàllu gàtt yi yow yaa ko yor euh, tey nag ñu ñëwaat fii Xelkom te barki démb rek li may faral di wax ni Cheikh ni ñëpp ñu ngi koy ñaanal ak wér ak gudd fan. xëy na bi yàlla dogee defee ndog-ndog moom ci am ñu ñaanal suñu borom yokk ak wéram bii mooy premier sortem waaye moom dafa ne aw bis. wootewuma fenn màggal Touba ak xel ko muy liggéeyub Serigne Saliou bi yow mi yor ci wàllu gàtt yi gannaaw bi ñu fi ñëwee daaw ak ren ban amélioration ban yokkute nga xam ni yi am nga gis nga ko ci liggéey liggéey xelkom bi. jërëjëfati Serigne Saliou jëfati Serigne Saliou Serigne Béthio jaamu Serigne Saliou yàlla na yërmandeem wasaaroo suñu biir. di ñaanal xalifaam bi sëñ Cheikh euh, Serigne Saliou Thioune. yàlla bàyyi ko fi sunu kanam ba ci kanam ak kanam di ñaanal Serigne Cheikh Saliou moom xalifa Serigne Touba Serigne Saliou euh, yàlla bàyyi ko suñu biir ba ci kanam ak kanam di ñaanal tamit jëwriñu tool yi muy Cheikh Amar waaw comme ni nga ko waxee rek fi may tàmbalee mooy ren bu ma juumulee mooy sama juróom-ñetteelu at fii ci kër gi ma yor liggéey bi lu jëm ci wàllu boucherie bi waaye lu ñuy nemmeeku comme ni nga ko waxee rek saa su ne dañuy gis ay yokkute. yokkute yooyu nag dara waralu ko lu dul pas-pas bi mu am ci yoon bi pas-pas bi mu am ci yoon bi yokkute yi loolu moo ko waral te saasu su ne kanam la jëm a ah, ren nag li ñuy gën a sante mooy doon gi mu doon jëriñu tool yi waa kër Serigne Saliou ñu mel ni sëñ Saliou Thioune ànd kook moom loolu day wane ne yoonu sëriñ Saliou du benn yoon du ñaari yoon du du du ñaari yoon du ñetti yoon wenn yoon képp la te sëñ Cheikh mate na ko sëkk kon ñi ngi sant ci loolu li mu ñëw ànd ak jëruñu toolu Cheikh Amar bokk ak moom liggéey bi. waaw comme ni ngeen ko gisee ci suba ak léegi bañ fi nekkee juróomi nag daanoo gum na fi te noppeegul ci kër gi waajaloon na ñeenti gilem ginaaru dàq jàpp yi waajaloon na ci lu ma téeméer xaru misu yi noonu doom yi ak naan yi lépp mat na te loolu dara taxu koo jóg lu dul gan yi ci kër gi loolu rekk ko tax jug ak bis bi yu bokkul ak tool yi waaw nii mu ko defee nii mu ko waajee ci wàllu bernde yi noonu la ko waaje ci bépp anam boo xamante ne bis bi laaj na ko moo xam ci wàllu oto yi moo xam ci wàllu yeneen jumtukaay yoo xamante ne nii bis laaj na ko bàyyiwul fenn comme ni nga ko waxee sànq rek euh, ñu ngi koy ñaanal lu mu mënoon daaw ren bu ñëwee mu mu ful ko lu mu mënoon ren bu déwén ñëwee mu mën ko fuuf ci barkeb Serigne Saliou ñu ngi koy siyaare bu baax di ko ñaanal mu yàgg fi tëwër jërëjëf. maanaam ñu jàpp ni ren comme ni nga ko waxee Serigne Saliou Thioune moom Cheikh euh, Cheikh Béthio euh, daanaka génnul ci liggéey bi waaye dafa gën a ñëw tàbbiwaat ci liggéey bi. lépp ci ndigalu Serigne Cheikh moom Serigne Saliou ba pare nag jëwriñ yi tamit nañ ko joxe woon Cheikh noonu ñu gën koo feddali maanaam liggéey boobu ñoom ñu ànd ko tey te lépp di Serigne saaliw kon de xel ko mel na ni reen daal a gis nañ ci ak yokkute gu gu takk goo xam ni mel na ni oto yaa ngi ñëpp a ngi dem rek ci liggéey bi te wax nañ ni sax liggéey bi daanaka bi ñu wootee nee nañ presque liggéey bi jeex na. moom li mu def looloo ko war teggiwul yoon benn yoon li mu def nii looloo ko war mu necc lii moom xaw ma kan waaye man bettuma woon man yàgg yàgg xamoon naa ni daje dina am ndax yoon wi wenn képp la wax naa la ko sànq du ñaar du du ñetti yoon du ñeenti yoon benn yoon moo jëm fa sëriñ Saliou te sëñ Cheikh mate na ko donc kon moom li ko war mooy ñëw sóobu ci liggéey bi jot ndigal ñëw sóobu ci liggéey bi ànd ak taalibeem yi ànd kook ñoom démb damay xëy di seetaan benn tudd bu mu demoon waaye boo gisee ci xar kanamam da ngay xam ne kii yàkkamti naa jóge fi ba dem tàbbi ci liggéeyal Serigne tubaab bi te noonu la ko defee ba mu tuddee ba noppi mook rakkam yu baax yi ku ci mel ni sëñ xaadim Thioune ak Sall Midaad ak ñoom sëñ xaadim Mbooseek euh, rakkam yëpp Suisse Seydina noonu lañ àndandoo dugg seen oto jubali ci tool yi. jërëjëf noonu lañu ñuy àndandoo dem jubali ci tool yi loolu la liggéey liggéeyam Serigne Saliou moo ni mel boo xoolee Serigne Cheikh Saliou ren daanaka mën nañu wax ni Serigne Touba tayam ju ne gàccal ni dembam euh, waa kër Cheikh Béthio yi ñëw tàbbi ci liggéey bi donte ñu ngi ci woon ci liggéey bi ñëw ànd kook Cheikh Amar mi nga xamante ni si muy Cheikh Ndar mi nga xam ni mooy mooy mooy jëwriñu tool yi kon daal li ñuy def daal mooy di ñaanal comme ni ko jëwriñ waxee. boo ñëwee ci kër gi mu ngi fees dell daanaka ay gàtt ay gëléem lu nekk ñi ngi koy def pour ñi nga xam ne ñoo nekk ci kër gi. te ni mu ko defee ci kër gi noonu la ko defee ci tool yi maanaam am na waañ ca tool wa bu boucherie baa nga ca toole ñuy toggi di jox di jox nit ñi kon ndigal loolu nga xamante ni sëriñ Cheikh Saliou jox na ko Cheikh Amar muy jëwriñ bi ñi ngi koy ñaanal lu man ren. yàlla na ko sama borom yokk ba mu ko def ay ati ati ati at ñu leen di jox dig daje ba ci kanam tamit ci tool yi nuy rek lañ koy defee jërë ngeen jëf. ndax ca sëñ bi tax ka ko jëf jëf-jëf ja sëñ raw gën koo rafet la mu jëf looloo waral Cheikh Amar jëf-jëf ju fa barab bu mag ba nekk fa Tuubaa